suñ kilifa yooyee ca Touba ak Tiwaawan ku ko ci dégg di nga rus lool parce que da ngay xam ni Cheikh Tahirou ak Imam Darame kat xaaruñu leen woon fii waaye fii ñu toog nag tey sikk sàkk nekkul ci ne dëgg rek moo tax ñu toog fi ak bëgg jàmmi réew mi ak bëgg développement réew mi te loolu dara mënu ko doxal lu dul réew mi nekk ci dëgg dëgg googu nag du dëggug ma sàmba du dëggug ma demba waaye dëggug yàlla la di lu wax xàtt nag di lu metti muy dox bari loo mën a perte bari loo mën a ñàkk bari loo nangoo muñ pour nga mën a tax taxaw taxaw ci dëgg kii ñu fi dajale nag muy président Ousmane Sonko yàlla de moo xam ku jub yàlla moo xam ku nekk ci dëgg waaye mbooleem jumtukaay yi jaam mën a jëfandikoo ngir am yaqiin wala am yaakaar ci ne kii ku jub ku sax ci dëgg la jumtukaay yooyu yépp ku ko ci natt da nga fekk ne danga ko am ci moom cent pour cent kon jàpp nañ ne wuute wut ak dëgg gi moo tax ñun nangu wuñoo wute ak moom ndax pare wuñoo wute dëgg ñu bu neexee dëgg la ñuy àndal bu naqaree dëgg lañuy ñuy àndal ñi wuteeg dëgg sax saa bu ñu leen laajee yéen li ngeen nekk dañuy wax ne ñun kat wutee wuñu ak dëgg ndax ku ne gis na bi mu defee benn euh, interview ci kanamu juge bi dafa wax ne Sénégal de état de droit la ñun senegal ci dëgg dong lañ nekk duñ njaay kenn doole amuñu sax ay détenu politique nga xam ne saal bi sax dañ doon reetaan parce que moom ci boppam xam na ne lii muy wax maanaam safaanub dëgg la waaye dëgg mooy loo xam ne saa yoo ko bàyyee tamit mu dem saa bu ñu la laajee ndax yaa ngi dëgg doone nekkatuma ak dëgg même président Macky Sall soo ko laajoon day wax ne man maa nekk ci dëgg waaye nanguwul a bàyyi dëgg ba noppi assumé ne bàyyi naa dëgg kon dëgg rek mooy dëgg dëgg rek moo jara wut dëgg rek moo jara àndal loolu nag moo tax ñu teew fii tey ci biir dëgg googu ñuy wut nag ak li ko wër daf cee am loo xam ne moom lañ ñuy xaare muy gindi doomu aadama yi waaye dinañ gindi ci dëgg ak woo leen te woo leen ci dëgg ku gis suñu toogaay bi tey di nga xam ne CEDEAO ak diggante atte CEDEAO bi nga xam ne CEDEAO mooy atte senegal ak Ousmane Sonko ci ay mbir yu bari yuñ jàpp ne ay tooñ la bañ yóbbu ci kanamu cour boobu pour ñu atte ak kalaame boo xam ne état senegal ci boppam moo def kalaame ci cour suprême ci candidature Ousmane Sonko ngir wax ne daf koo bëgg a génnee ci liste bi loolu nag nekk mbir mu garaaw moo xam ne ñaar moo ci am mooy nan ñaan ci yàlla loolu bañu a am mukk ci kaw suuf waaye itam dolliwaat xamal nit ñi loolu ñuy bëgg a def lan la bañ man koo ba mu jaral leen ñu woor jaral leen wird jaral leen sàkk sarax pour loolu bañ a am parce que tey jii bépp tele bu ñu fekkoon muy takk ci réew mi ñu ne tele bii kat dañ koy fay weer comme ni ñu defoon groupe Walfadjri xëy na sax mënees na ko toloree wala mënees na ko ñàkk a toloree waaye bu ñu ne woon télé bii de danañ ko fay ba yowmal xayaamatil akbar télé bi dootul tàkk danañ xam ne ah loolu kat lu garaaw la kon balaa ñu koo def nañ ko seet ñu seetaat ku ñu fekkoon fii ci caméraman yi na la bés naka tey dootoo caméra li des ci sa adduna dana nekk mbir mu diis ñu teg ci sa kaw commerçant bu ko defoon dana diis ci yow. imaam bu ñu newoon yow li des ci sa àdduna dootoo taxaw ci minbar di jiite dana diis ci yow Ousmane Sonko nag liggéeyam moo nekkoon liggéey ci euh, euh, euh, nu mu tuddati et domaine la nekkoon inspecteur ginnaaw état senegal dogal ne ko de li des ci sa dund dootoo nekk inspecteur u impôt raje ko ci mu bàyyi fa lépp jël liggéeyam def ko muy politique politique nag falu la ak fale lii ñuy wuti mooy ginnaaw suba état du Sénégal li muy sàkku ci cour suprême mooy li des ci noyyi Ousmane sunk ci àdduna bu mu mën a fal nit te bu mu mën a falooti loolu nag benn waay bu mel ne tey Baye Assane Mesere mee toog ku ko defoon loolu nga xam ne maanaam da da ne ah yow kat da ngay te kenn gëmu la sax suñ ne woon dañ lay raje ba dootoo mën a fal nit dootoo mën a falu war na war na Sénégal yëpp ñu taxaw ba loolu même bu fekkee lu mënta ñàkk am la na nekk ci dëgg gu leer naññ xam ne lii rek moo fi mën a am. parce que tey nit ki ñu yaakaaru fukki at yii ci kanam mën naa am sax am ñu ko yaakaar tey xam ngeen ne Ousmane ko bu caaxaan jeexee dëgg des amul lenn lu nekk ci gannaaw bëgg a dindi googu ci gannaaw kii bi lu dul xam ne askanu Sénégal dañ koo bëgg dañ ko yaakaar nit nag boo demee bay tas yaakaari jàmm ñi war nga koo teg ci ay baas yu leer loolu nag moo tax ñu bëgg a leeral sénégalais yi ñu xam ne li ñuy defi mooy. état bi moom dafa sàkku ci kuur bi ne ko jëleel ma Ousmane Sonko ci dootu falu li des ci addunaam waaye dootu mën a fal ak nit li des ci addunaam loolu nag xam ngeen ne mbir mu garaaw la moo xam ne jàppoon nañ ne sax Sénégal moom wërta àgg foofu bay tëgg loi sax bu mën a def loolu doomu aadama waxuma laak nag fekk koo xam ne wóor na ne le bii dalul ci kawam mere ko ak ragal ko ci wàllu élection rek tax nga bëgg jël luwaa boo xam ne moom moomul loi bi nga teg ko ci kawam te bariki ki démb kat daf ñoo joxoñoon Karim Wade ne ñu sàcc la sàcckatu muket sax sàcc nañ ko sàcc nañ lu ne triant nañ fépp ba mu neex leen ñu jëlaat xalifa sàll ne moom itam ab sàcc la sàcc nañ milliards nangu wërta jiite dara ci dëkk bi moom itam dox ba yàgg état boobu tey waññi ko waat ne euh, Khalifa Sall ak Karim Wade mii nga xam ne maa waxoon ne dañuy sàcc ak dañuy tappale génn naa ca la ma waxoon léegi nag nañ amaat sañ-sañu bi nga xam ne ku sàccute koy am nañ amaat sañ-sañu bi nga xam ne ku triyaane wute koy am kon état bi diggante booba ñun ñëpp ñu ngi dund fi kenn deewu fi ndegam moo mën a jël Karim Wade ak Khalifa Sall bam neex ko mu xëy ne la ma waxoon ci ñoom dara amu ci maa ci dellu gannaaw su bëggee songaat keneen même bu fekkoonte ne daanu rokk ko wax dëgg sax war nañoo teew ci ka ci ay yëfam ndax day mel ne day wax tey weddi suba noonu la état bi doxalee léegi nag ñun ñi nga xam ne ay sëriñu daara lañ ak ñun ñi nga xam ne ay imaam yi jàkka lañ ak i jumaa ak ñi nga xam ne ay ustaas lañ wala ay gindikat lañ ay yeetekat lañ ak ñi nga xam ne sax dañoo def seenu cër ci àdduna muy toog yor seen kurus di ñaan ci yàlla ñooñu la ñuy woo woote bi nag du dañ leen a woo ñoom génnee ci citoyen lamdaar yi ndax ñépp la yàllaa leen bokk bind te effort bi mu def ci imam bi moom la def ci caméraman bii pour mu jut kenn ku nekk nag la nga nekk yàllaa ko sàkk mu xalal law yoon ñu bëgg a doole boole doole yi askan wi ñi nga xam ne jàpp nañ ne lii Ousmane Sonko di dund teguwul ci dëgg te teg na ci ak tooñaange képp koo xam ne jàpp nga ne loolu kat maanaam amul dëgg lenn lu ciy ceslaayul dëgg lu nekk ci lii ñu koy teg dañoo bëgg ñu ànd bokk ñaan yàlla suñ borom subhanahu wa taala mu àtteel ñu dëgg ba Ousmane Sonko mbooleem pexe ak lu ñuy jéem ci kawam loo xam ne dëppoowul ak dëgg yàlla bu mu ànt ndax ku wax mu yegg nag yàlla la neex te bu kenn wóolatut yàlla ñun de wóolu nañ yàlla bu kenn doylootut yàlla ñun doyloo nañ ko bu ñëpp sànnee yàlla ànduñoo ak moom it ñun sànni ko ànd nañoo moom wóoluwuñ doolee kenn ku dul doolee yàlla subhaanahu wa bëgg nañ yàlla mi nga xam ne mooy attekat bu mag bi mu atteel ñu dëgg ba Ousmane Sonko ñaar yii ñu war a atte ci moom benn bu ci nekk mu am ca ndam lu rëy lu ñëpp siggi képp ku koy bañ tamit bis booba nekk bis buy tàng sa te doo ca am doo ca am di ci ñaan tamit loolu bu yàggul rek am na gisoon defoon naa ko sama biir kër ci rek laa ko def waaye nag yoon mbokk yëpp ko yëgandoo ñu yëg ne 46 département yëpp am nay daaray alxuraan am nay soppee Ousmane Sonko am nay sëriñu daara am nay imaam ñu bëgg boole dawla yi 46 département yëpp lu ko tàmbali suba àllarba alxemes ba ajjuma jooju ñu def ko bisi ñaan waaye rawatina nag alxames ji ndax kenn ku ne mën ngaa beru ci sam néeg te yaakaar naa ne ku nekk ci ñun yaa ngi beru di ko ñaanal waaye jàpp naa ne julli beru dem ci mbooloo mi julli la yàlla gën a bëgg kon ñaan beru dajaloo ci mbooloo ñaan mooy li yàlla gën a bëgg ñu bëgg booloo ci biir daara ci biir jumaa yi képp koo xam ne da nekk Casamance nga am yëg-yëgu ne lii de man ñii ñii di wax nii kat maa ngi ñoo ma bokk yëg-yëg am na numéro yoo xam ne danañ ko publier wala sëñ Mansour dana ko joxe su ko defee nga ne man de maa ngi Casamance danañ la wax ka ñu nekkal Casamance ak waa Casamance bu ñu ko bëggee def fan la ñuy daje. Hmm. ku nekk Louga bu yëgloo ci numéro yi danañ ko ne Louga kat kii yu fa nekk bis nangam la heure nangam la alxames la gannaaw tàkkusaan comme waxtu wii bu ñu jullee tàkkusaan ca la ñuy nekk ba tisbaar ba ba timis ba gannaaw timis. Hmm. lépp nag loo xam ne dañ koy ñaana yàlla rek mën nañoo dajaloo def ko muy jàng ay yaasin jàng mu miitu tabat xulya euh, euh, lixlaas jàng alxuraan ba mat ismul jalaal bax baxaa bay wuñ dara lépp loo xam ne ba ci sayfi yu lépp loo xam ne daal am na cëslaay ci alxuraan ak sunna te man te yàlla ne jaar leen ca ñaan ma ma ma may leen bañuñu ku ca woote te ñaan ca li ñuy defit menacé wuñ kenn ndax mën naa am sax lii ñu yëg juge yi war a atte yëg nañu kon nekkul ñu ne dañoo woote pour dal ci kaw benn politicien ñaan ko mu dee wala dañuy dal ci kaw benn juge ñaan ko mu dee dëgg daal yàllaa ko moom te mooy alal yàlla képp ku bëgg taxaw xeex dëggu yàlla gi yàlla boo jariñoo la tax nga koy xeex su fekkee dañ laa ger ngir nga xeex ko lañ la gere yàlla bu mu dem sa biir yàlla na nga ko yàlla boo ko jariñoo bu fekkee danga koo def dañ laa woo wax ne nëbbal dëgg ngir ne kat da nga am wàccuwaay sàngam maanaam da nga la fal poste sàngam wala danañ la yéegee maqaama sàngam soo nëbbee dëgg gi poste boobee bu yàlla bu ci saw sawtaat dëju barke alxuraan te bu amee ba noppi maanaam saa bu nit toogee làq dëggug yàlla googu xeex ko ba tas yaakaaru askan bis boobee yàlla na nekk sax wëlbatiku di deltu gannaaw yaag sax njaboot ba mujj nekk ku kenn dul tuddati ci kaw suuf ba asamaan ak suuf raafal la ñi ngi koy ñaan yàlla mi nga xam ne am na kàttan gi am na sañ-sañ bi am na man-man bi ndax dëgg kat ku nee ko sañ a ba mu des ab juge yàlla subhanahu wa taala li muy kawe kawe ak li muy moom moom nit ñi d'accord na moom yàlla nekk ab juge toog atte parce que dafa dafa jàpp ne yàlla ci boppam dafa jàpp ne ñaar rek moo tax nit war a atte mooy xam dëgg ba noppi nangu koo atte maanaam nangoo teg dëgg saa bu nit amee ñaar yii rek ku jekk la ci atte mooy xam dëgg tey jii ku ma yóbbu woon ci attekaay ba mën naa am nit di wax loo xam ne du dëgg ñàkku ñàkk gu ma ñàkk xam looy réew mi dina tax du ma xam ba xam kii wax na dëgg wala waxul dëgg kon li jiitu ci attekat mooy na xam dëgg waaye ñaareel ba ca des moo xam ne mooy tax yàlla sax nangoo bokk ci mbir mi mooy nangu dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy gën gën nit ñi nangu na nekk attekat mooy toog ñaari nit jote mu atte kon keneen koo xam ne soobu nga ci yoon ba yàlla def la ab attekat bokk nga ak yàlla ab ab ab ab siis booy toog bokk nga ak yonent bi siis booy toog képp nag koo xam ne da ngaa dëgg lu la yàlla teg jëlal attekat yi nag jàpp naa ne ah amul luñ leen di wax ñoom xam nañ seen liggéey waaye nañu xam ne rek Ousmane ko lépp lu nit di jël di ko teg ci kawam na ko nat na xam ne loo ko def def nga ko waa réew mépp noonu la demee ndax moom li mu nekk ndimbalul yàlla subhaanahu wa taala dong nga ko ci fekk bërki démb Macky Sall mii mu seqal wax ji taxaw na ca ca ca ca euh, Kaffrine gii matul ñetti at ci gannaaw wax ne nit koo xam ne sa politique yëpp mooy topp internet bi di commentaire di kacc kacc yaakaar ne yaa moom réew mi ba élection ya di nga xam ne amoo dara Macky Sall moo ko waxoon Sonko bu ñu demee tey it ba élection yooyu mu ko woon nañ ca dem tey mu taxaw tax kan nang ne ko du ma dem ak yow élection war nañoo wax diggante bi lu fi soppiku ba mu tënku woon ko ne ko nañ dem élection tey nanguwut a dem ak moom élection kon lépp loo xam ne day suuxal doomu aadama baa mu koy suul baa mu koy tax nit ñi fàtte ko rek teg nañ ko Ousmane ko te teewul yàlla mi nga xam ne moo bind te moom kattan moo ko téyal boppam bokk na ci nag li tax suñu xel dal mooy ñii fi toog kenn koo ci mën a woo ci aw fen mu wuy la amut kenn koo ci mën a fay mu lay waxal amut sëñ taahiru mii ba ci imaam Moustapha sëñ Dramé ma neen mi nekk parcelle euh, imaam euh, sëñ Pa Dramé ba ci Ibrahima Dramé ba ci imaam Dramé mii toog ak mbooleem ñi nga xam ne dañoo nekk ci euh, niti daara yi ak imaam yeeg ñëpp bi Abdou juuf di ne fii fii la leen fekkoon mosu a jaral dugal ci seen làmmiñ mosu leen a jaral dugal ci seen image bi fi Ablaye Wade yi nekk fii la leen fekkoon mosuñu cee gis lu leen jaral dugal seen làmmi mosuñoo gis lu leen jaral dugal seen kàddu wala seen image di ci feeñ tey bu ñu demee ba mbirum Ousmane Sonko xàmmeetuñu kuy politicien xàmmeetuñu ab ab ab ab muudu muudu buy wut liggéey bu nekk bitim réew xàmmeetuñ ab journaliste xàmmeetuñ sëriñub tariixa xàmmeetuñ ibaadu xàmmeetuñ tiijaan xàmmeetuñ murit ñëpp booloo am benn bëgg-bëgg am genn yëg-yëg mooy jël Ousmane Sonko teg ko ci bopp Sénégal jàpp ne loola dana jëriñ réew mi képp koo xam ne da ngaa bëgg a taxaw ngir salteel loolu nanga xam bu baax nga jël say responsabilité xam na am nga affaire ak ku ne loolu na nga ko xam am nga affaire ak ku ne te billaahi la si laa ilaha illaa huwa xeex bii ngeen di xeex Sonko du ngeen ci am ndam ci saahir du ngeen ci am ndam ci baatin billaahi la si loolu moom mën nañ koo waat ci yàlla mën koo waat ci alxuraan ndax xam nañ li topp Sonko bu doon ay caaxaan baa ak fen du ko duñ ko topp te mësuma fàttaliku ci histoire àdduna fu yàlla dajalee ay ndaw yaakaar loo leen dara ba noppi tas yaakaar ja loolu musta am te lii nag yaakaar yi ndaw ñi la yaakaar yi góor ñi la yaakaar yi jigéen ñi la yaakaar yi sëriñ si la yaakaar yi nit ñi jàpp ci ñoom jub yépp koo ci waxtaanal ci biir nekk dana la la ko nekk sama biir xol loolu nag du organisation kenn du lu kenn yi may kenn bu doon bayre bu ñuy sangoo ñoo ko koy njëkk sangoo bu doon ñaan gu ñuy ñaan ñoo ko koy a ñaan lu yàlla subhanahu wa di def ci téeméeri at yu ko neex wala ñaar téeméeri at yu ko mu sàkk ab jaam def ca moom la ko soob yàlla moo jël def defam def ko ci usmaan Sonko yàlla nag ba mu jëlee la muy def ci Ousmane Sonko ba mu jëlee la muy jël def ko ca ah, yonent yàlla Muhammad téewut daa jël aboo la aboo aboo lahab teg ko ca wet ga ba mu jëlee la muy jël def ko ci Moussa daa jël Firawna teg ca wet ga kon jël li muy jël teg ko ci kaw Ousmane Sonko du teree am ñoo xam ne seen xol lëndëm na seenu fit dëgër na réere nañ yàlla bañ nañ lu baax ñu jàkkaarloo moom ne ko mbir mi du fi amee du caagi neet Ousmane Sonko dafa dem ci kaso bi mook ñoom Bisiru Jomaay Fay kon ah yéen a ko nangam nangam yonente yàlla Muhammad ma Makka la juddoo gën a bëgg Makka fépp te daa dem ba xat-xat jëlee ko Makka dem waaye tréewut ba muy demit la yàlla bëggoon ci moom génn Makka toog Makka ci yam am na Cheikh Amadou Bamba Xaadimal Moustapha mii dafa sañ ci Touba mu gënal ko fépp ci kaw suuf xat-xat yi àdduna tax na jëlee nañ ko fi ba génnee ko réew mi te tréewut lam doon samp xëy na samp ba tey dara fayu ko kon Ousmane Nelson Mandela bu ñu ko jëlee jël Mahatma Gandhi jël ñoom euh, ayatullahi Khomeini amul benn nit boo xam ne da ngaa woote dëgg dëgg ga sedd ci say loxo ba nga xëy réaliser ko toog amoo ci benn problème loolu mësta am ku sañoon nag Ousmane Sonko du dem kaso ku sañoon kenn du tas parteem ku sañoon kenn du ko def lenn lu ko naqari ndax nit doo ko bëgg ba noppi di ko yéene musiba waaye nag amul benn nit boo xam ne mas ngaa woote li Ousmane Sonko woote ba noppi maanaam amul benn jafe-jafe boo xam ne bu ñuy netti la sa histoire danañ ne histoire bi kat jafe-jafe yaa ngi nii yaayatulaay xumay ni